الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بكي نيوغي لين دي نوكل تي دي لين بالو اق تي دي بال اق لين لين نوكل نك موي ويرو ماغ و تيت دي ويغا موي ويرو غام دي واخ لا باي نياسو خون رك أهلا بثحر المولد سحر غلا والسؤدد سحر النبي أحمد سحر الربيع الأول ndokel gogu baye ñes ndokelon wéru gam ñoo ngi leen ci ndokel ndax mom daan def naan su wéri feñé mu ndokel ka ba wax ba pare na wéru baay feñña nonit la mag ñépp mel ñu ngi leen ñu ndokkeel ci weeru gàmm yi bokk yi suñu xutba tey mi ngi jëm ci nuy dundale gàmm waaye laata ñuy dugg ci xutba bi rek bokk yi ñu def benn entreprise boo xam ne mi ngi jëm ci ndawi tiijaan yi ak murid yi ci li xew ci jamono ji ci internet bi ci ay kaddu yoo xam ne kàddu yu ñaaw la te dara waralu ko lu benn waay boo xam ne daa wax ne naa yi jeex na ñu ngi ci coupe du monde bi maanaam tuddee gàmmu gi coupe coupe du monde tuddee màggal yee yi fi ja ay ay championnat xaw ma la nga ko waxee sax euh, ci wàllu football bi ci ci misaal bi misaal yi mu joxe yooyu. loolu indi coow ci ndaw ndawi tijaan yi ak ndawi murid yi bokk yi loolu coow waru ci am xastaate waxu waru ci am wax ju ñaaw waru ci am. diggante alaaji malik si ak Cheikh Amadou Bamba ñoo bokk seenu bokk lan bokk ñoo ko bokk yàlla leen boole ak bokk kenn mënu ci dara ñaareel ba mooy cofeel gi am seen diggante ñoom ñaar suñu borom def na ko ñetteel bi mooy ñoo bokk alquran ñoo bokk xibla bi ni jublu ñoo bokk benn sëriñ bi muy muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu waxante lu fi ñe di wax ay kaddu yoo xam ne ndaw yi murid yeeg ndaw yi tijaan yi di ko wax loolu mën naa ñàkk te xam ku ne xam na ne Maam Alaaji Maalik bi mu joxee sëñ Tuubaa addiya bind bayitam yu sell yooyu haddiyatun mujibu talaab mahabbatan ya ay xubaab la tax mu jox addiya na ko li tax addiya ji bi ma la ko joxee dara waralu ko dudul cofeel gi ma am sama diggante ak yow Ahmadou Bamba jàpp moo ko waral cofeel gi leen yàlla boole waxuma bokk gi de mais cofeel gi bi sëñ Tuubaa jotee addi ji lan la wax nako yow alaaji malik lan mo waral man ak yow duñ beugante duñ soppante ca ñu bokk benn sëriñ mu yonante bi sallallahu alayhi wasallam fa kayfa la wal mustafa al mujab imamuna wal xit wal xit la nuhaab kon ñaar ñooñu ñun ndaw ñu tout nan di wax ci seen digënté lu ñaaw wala ñu ci wax lo xamne ne jaaduwut ca ku ne xamne ne seigne sëñ Sidi Muxtaar waxoon na fi la waxon ñëpp ko dégg kon ndaw yi jamono ji lay waxal nan bàyyi tidiane yi lii nday mur yi naan murid yi yii di wax ay wax yoo xam ne du wax ju jaadu du wax loolu bokk yi du ab julli du am xam nga ñun li ñu war maam alaaji maay la ko suñu borom may may na ko Cheikh Amadou Bamba li ko suñu borom may may na ko Baye Niass la ko suñu borom may ne kenn ku mën a nangu sama yu morom amul kenn ku sab taalibi mën a jël samay morom jox ko sa morom amul kon li ñu war moo ñun ñu dellu ci seen i mbind ci jëfe seen i mbind la alaaji maay digal ay taalibe nante sax ca di ko dox la seigne touba digal ay talibem nañ te sax te diko dox seigne touba neena won kep ku ngeen gis mu yox la ilaha illallah bu len ko def am noonu taadu man raaytum fa yukhruju la ilaha illallah seigne touba waxon na lol dal waxana fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawaun intama ila jilaani aw intama li ahmad atijani aw li siwahuma min al aqtaabi is kullum qatan ala sawab sëñ tubaa nee werde bu mëna doon ci ñooñu ma tudd Cheikh Amadou Tidiane nek ñom ñëpp kenn ku ci nek Abdou Qadir Jilani nee kenn ku ci nek ci lu leer lu jup ci nga nek ñu ne ko li tax mu ne iskulu iskullum yad'ul muridina ila taati rabbil arsh ñom ñëpp dañuy wote murid yi ak talib yi jëm nañ ci top yàlla Seigne Touba teg ca nak lu am solo bu retan kenn bul wedd kan bil istiqamati fala tashqar minu abad wala tunkir ahad kon yow taalibe murid war nga jëfe lool war nga jàng njàngum Seigne Bamba ba jëmën a jëfe li sëñ Tuubaa wax bul reetaan kenn bul weddi kenn bokk yi ñun foofu lañu war a nekk foofu it fi la tijaan yi war a nekk foofee fi la laayeen yi war a nekk waaye kenn ndaw ñi ci bappam kenn ku nekk beru di wax sa moroom lu ñaaw ci jamono ji ñu toll bokk yi loolu ñaaw na te ku dugg ci internet bi gis ko fi ma ciy mujjantele mooy la Alaaji Maalik waxoon sëñ Maru Ba te ku dem ci diraasaat xawla yi di bi téere boobu Rawdu Rayaahiin def génnewuñ ko ci màggal Tuuba da ci fekk wax ji ma lay dana ko fa alam yaa ma yow sëñ ma rubba na nga xam ne képp ku bëgg a dugg sama diggante man Alaaji Maalik ak Cheikh Ahmadou Bamba te dara taxul nga ci di dugg ngir yàq dara taxul nga dig ci dugg yàq nee na xamal ne kookee moo yàq waaye du ci yàqoon daal di wax ne fa kul képp koo xam ne nag da ngay woote ne wa da ngay woote ne man Maalik nga nga yaakaar وأنه لو دعي تعلق بمالك فإن مالك تبرأ منه لأنه كبك يقسم الدقن تشاء عمر بما تبقى طريقة جان تيا كارما بكو يا نانا يا أجي من مالك ويا من, من جنة جيو سنجب لولا سألك مالك وقت كون دقن تسنج باك الله مالك در ورك يحل كون نندوي تيجاني نندوي موريلي نندفرار سنجوكو أك سن ملوكان ak sunu taalibe li ñu war mooy nan jàng seen mbind ca xam ko ca jëfe ko taaliba murid bi na fexe li Sëñ Tuubaa digle mu san mu ne ca taaliba tijaan bi noonu taaliba seen bi noonu waaye ndaw ndawi taaliba yi léegi kenn ku ci nekk da jàpp di xas sa moroom ci jamono ji ñu toll bokk yi loolu ñaaw na loolu dama ne woon mënumaa ñàkk ñëkk ko ci xutba bokk ko ko sa bopp dénk ko kon nag bu nee naka la ñuy dundale gàmm ñu xam ne gàmm bokk yi lu am solo la mom la ñuy wax mawlidi nabi moy dundal guddi yonte bi sallallahu alayhi wasallam dara waralu ko nag mbekti mu julli di am ak yol ci gan ak jamono yonte bi sallallahu taala alayhi wasallam mo waral borom xam nga dañ wax ne magal ko sharia da koy nangu ca magal ko timit dana waral ne wane ne ñi koy def bëgg nañ yonante bi sallallahu taala alayhi wasallam te ku ne xam ne ne bëgg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam benn ponk la ci ponk liimaan yi ndax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp ku topp yonante bi topp nga ma kon nag ku topp yonante bi topp nga yàlla waaye nag suñu borom waxaat ci alxuraan ne su ngeen ma bëggee na ngeen topp rasulullah sallallahu alayhi loolu kon mooy yonante bi sallallahu alayhi wa sallam màggal guddi gi nga xam ne ci la gane woon ci la gane jamono màggal googu lu war la buñ déglu nag wahabis yek ñu mel nonu ne ci di ko incar di ko jamono ji dani bu fekke ab kan nga yaa ngi dégg wedd ñu bari way yow loolu bu na soxal ndax lan cey def ci lu baax man nga ko layal ci alquran man ko lay ci sunna yonenti mo non ko sof lu rafet ci l'islam nit ñi roy la ci da nga ci am yool ak yoolum ña la ci roy bu dee safa nit da nga ci am bakkar ak ci roy mo waral fatali bi ni ku guddi yonenti bi alayhi wasallam nin koy dundale moy di zikkar di tuddu yàlla di ko tag manam di way ay way yo xamne day jëm ci tag ko ak sant ko di joxe aw ñam di sarxe di taxaw di julli dégg nga ngir am mbekté ci dikku yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam fa taa man hayya liman lahu qad qarra'a mubajjilan faqabba qayrat xayraati ahli lhimami sëñ Tuubaa nee na képp koo xam ne da ngaa fekk ña ñay dundal guddi gi nga jox leen aw ñam nee na loolu de bokk na ci ndëxañteef yi gën a màgg ëllëg waxaat ci yeneen itam ne donte suukar la wala ak dogu yàpp la wala dërham la fa innahu kaman hadar yawma hunayn wa sabar wa yawma badrin wa nasar xayra waral mu kon màggal ko ci anam googu nga xam ne mën na lislaam santaane ñu ko ci màggal bokk yi loolu lu am solo la guddi gàmm nag buñ demee ci alquran ak sunna dañ dañ ci fekk fu ko yonente bi salance fu fu borom xam-xam di ko wax ndax wa dakkirum bi ayaamillah ayaamillah yi mooy bis yàlla yi da cee bokk mooy guddi gàmm bokk yi kon fàttaliku gi ni fàttaliku yonente bi salaa sallam ñu bàyyi xam ne xel ne iidub lislaam la fetu l'islam la gu mag goo xam ne war na ci ñun ñu di ko fàttaliku ci te fàttali koo xam ne dañ koy jëbale ci lislaam li ñu lislaam sant maanaam it feet gu bari ay njariñ la njariñu àdduna ak njariñu alaaxira moo war a sëñ Tuubaa nee na woon guddi gi yonent bi salaa sallam de lu nu màggal la lu barkeel la lu armaal la kon war na ci ñu màggal ko ndax ñu njëkk ñu fi jaaroon dañ ko daan màggal ndax bisub altine dañ koy woor dañ ko daan woor yonent bi bu ko masaane woor buñ ko laajee loo ci jublu mu ne màggal bis bi nga xam ne ci laa jamono moo waral bu ñu koy màggale ñu teg ko ci sunna taazimuhu bi sunna teg ko ci sunna mooy lépp loo xam ne diina nanguwu ko buñ ko def nan teqale jigéen ñi fële teqale góor ñi fële ñee di zikkar jigéen ñi sol lu jot sol lu war a sol góor ñi tamit sol lu jot bañ a sol ay ay ay tuba yu dang ak pion yeeg yu mel noonu kenn ku ci nekk sol sa xaftaan bu mat bu jot jigéen ñi def ko muuru muur gu jot ñee beru fee ñee beru fee yu tudd yàlla te bañ ci caaxaanante waaye nag ni moytandiku gàmm yi ak màggal yi ñu di ci joxe ay rendez caaxaan ay rendez-vous caaxaan te léeg-léeg da ko gis si ndaw ñi gàmm yi ak màggal yi ñu ci joxe ay rendez-vous caaxaan nani moy ci dem ci gàmm yi màggal yi tamit bokk yi ne ca barab caaxaane wala ñu dem fa di sàcc ak noonu ñiy gàmm ak ñiy raas dem nag bokkuñu bari na ci ñoo xam ne naan maa ngi dem gàmm ga doonoo dem bari na ñoo xam ne maa ngi dem màggal ga màggal taxu leen ci dañoo raasi dem kon nani moytandiku la kon nan ko teg ci sunna almam alaaji malik nee na woon ala azimu layla li wiladati xisbatan ida lam yakku nahwa alxaram bu fekkee na lu aram nekku fa ida lam yakku nahwa alxaraami udulu kon ñooñu ni nga xam ne noonu la sun mag ñooñu doon màggala yonente bi salaa sallama nan ca am fulla ak fayda di màggala noonu yonente bi salaa alayhi wa sallama boo demee tiwaawoon nga dem njaasaan nga dem faneen ak faneen ñëw tuubaa nga gis ni mag ñi di màggaleem yonante bi sallallahu alayhi wasallam ñii ngay jàng xaside yi ñi ngay ñi ngay ñi ngay ñi ngay zikkar ñi ngay def nangam ñi ngay def nangam loo nee la ni màggale yonante bi sallallahu taala alayhi wasallam kon mbokk yi su ko defee nag bernda yan cay def ak yu mel noonu ñu xool ñu di ko aajowoo ñu leen koy jox di di di di di wax di tari di tari di tari maanaam euh, di nettali xissa yonante bi sallallahu taala alayhi wasallam ci guddi yonante bi sallallahu alayhi wasallam guddi googu nag sëñ Touba nee na woon guddi yonte bi salaa salama day far ay bàkkaar daal wax ne laylatu mawlidi nabi laylatu mahwi riyab laylatu mahwi taabi wa tuuri si taasum biha najaatu wal falah maa sururin wa naja biha rabahu wa salaam an difaa niqami kon guddi la goo xam ne bokk yi ñun ñëpp war nañ cee bàyyi xel kenn ku ci nekk def sa yitte ca góorgóorlu ci ndax ku ne xam ne ku nu bind yonante bi salaa sallam moo tax leer boo gis ci kaw suufit muy leer ci leegi yonte bi sallallahu alayhi wa sallam la jógee sëñ tubaa nee na woon min nuur yi kulla nuurin saatiun bi shana nuuru nujumi wa nuuri samsi wal qamari amala ji malik na wa innahu is arada allahu nasatana abana min nuurihi nuura nabiyi alami إن العوالم عاليها وسافلها أسعة طلعت من أفضل النسم قول ماك نيوني رك كم كون لول تي غودو يونتي صلى الله عليه وسلم لول تيميت لا ما عبد الله نيس واخنا نوره أول الوجود وجودا فهو أصل الأصول والأنجال لم يدل نوره بعين الله في انتقال في الكون بعد انتقالي كون جود يونت بي صلى الله عليه وسلم كان كو تي نيك لو تي مان نانكو داف تي نانكو دافوت تا نيي ماي تي نيكو لي ما واخون لغي تيجالي نانغام موريدي نانغام خادري نانغام نانغام اي واي كان كو تي نيك گمل كاغا گم جاب فاغا جاب تي جيما ام گرمل كاغا جاب ca bàyyi caaxaaneeg waxi amul benn njariñ yal na yàlla daf dégg ak topp rabbana atina fi dunya hasanatan wa qina azaban nar rabbana warzuq qulubana barata wa hab lana min ladunka rahmatan innaka tawwab allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna al-ittiba' wa arina al-batila batila warzuqna al-ijtinab wa ma dhalika 'ala allahi bi'aziz وكن معيسا لنا من شر حسد مع شر فم وشر عين يا الله وشر سحر وشر القلق انسيم مع جن وزوال ضمي الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولشعر المسلمين امين